bi euh, dañuy daal di jóge foofu dem fi nga xamante ne mooy assemblée nationale hmm. ndax gis nañ ci bës yi ñu génn euh, une tentative de supression du CESE et du HCCT foofu ci assemblée nationale juróon na fi coow euh, ba côté nguur gi liñ ci bëggoon amuñu ko doyen loolu lañu ñu fas yéene waxtaanee ni ñu demee ba nga xamante ne vote bi nga xamante ne moo amoon foofu pour suppression ñaari institution yooyu ak hmm. ni mu lajjee fa mu mujjee lan lañ ci mën a jàngat bon xam nga ah, semaine bi moom vraiment ça une semaine très politique. Ouais. lundi bi passé moo naa moo doon le deux. Mm-hmm. léegi président Diomaye dafa convoqué woon benn session extraordinaire. Mm-hmm. lan la ci jublu woon. Mm-hmm. mooy dindi institution boobu ñu tuddee au conseil des collectivité territoriales. lan la ci jubluwoon dindi institution bi ñu tuddee CESE conseil économique social et environnemental pour deux raisons bu njëkk bi mooy promesse électorale la moom moo ñu ko digoon et dañ ko insérer dans le projet de PASTEF mhm. beneen mbir mi mooy jàpp na ne sénégalais yu bari gisuñu ci seen bopp fi mu toll nii effectivement boo génnoon fii ci mbedd mi laajte lan mooy HCCT ñu bëri dina la ne ah xanaa xaj na produit bu bees la bu jigéen ñi di diwoo wala. lay laaj. <laughs> xamuñu ko boo doon seet aussi na ne ah xam naa kon certainement produit xeesal bu bees lay war a doon de donc hmm. ça veut dire que xamuñu ko. Hmm. te te yaa jàpp nañ ne ñun ñu Sénégalais yu bëri jàpp na ne dañoo doon ay institution budgétivore maanaam institution yoo xam ne day yàq yàqukaayu xaalis la. Hmm. ak régler yenn et puis boo interroger histoire. da ngay xool ne institution yooyu yëpp dañ ci doon caser ay homme politique ñu am ay moyens pour mën a def seen politique ñu ko jiite aussi am ay moyens parce que président 16 ak président HCCT chaque mois am nga cinquante millions de fonds donc loolu mën na la xettali pour ngay yenn militants yi nga gérer leen mhm. ñeneen ñi nga lijjanti seen bi léegi bi mu ñëwee mhm. moom dafa ñëw ci contexte boo xam ne moom nekku fa majorité léegi nag pour mu am pour mu loi bi mën a jàll il faut mu am les trois cinquièmes des députés présents bu dee cent soixante cinq députés ñoom présents pour nga mën a jàllale loi bi il faut nga am quatre vingt dix neuf députés parce que da ngay jël cent soixante cinq divisé par cinq multiplié par trois mu jox la quatre vingt dix neuf députés. léegi ñoom dans leur cas ce jour la il y a eu 83 Benno ak ñoom ñu am vingt donc loolu mënu jàll. pour mu mhm. mënoon jàll ñoom il fallait ñu am 97 députés donc 3 cinq yi malheureusement loolu amuñu ko mu def léegi bi loolu weer weesoo président Diomaye nee na il prend acte waaye après mu def ci benn remarque ne ñii il ak à compte courant de la volonté populaire. Mhm. léegi nag. foofu lañ tolloon ñu toog ku nekk di ci ëllëg sa nag waa Benno dugal motion de censure mhm. c'est une réponse politique à une à une action politique ñu dugal seen motion de censure ak tout ce qui s'en xam naa yooyu dinañ ci wax après mais pour le moment daal mhm. la tentative à échoué et Diomaye a pris acte te jàpp na ne daal ñooñu il rame à compte courant de la volonté populaire c'est pour cela mu ñëwaat jëlaataat beneen chemin quoi on y reviendra. merci doyen Sadio Fati gis nañ ne euh, ci suppression boobu waa Benno mën naa nekk wala beneen boor bi ñoom am nañ ci ndam ndax liñ ci bëggoon am nañ ko mujj ñu ko woon voté boobu. effectivement li liñ constaté si semaine bi la mhm. mais ñu fàttali que ni d'abord institution yooyu lan moo leen tax a jóg ak seen origine. Mhm. parce que boo xoolee HCCT ak aste c HCCT recommandation assise national HCC c' est des recommandations assises nationales la CSE en fait institution yooyu li leen tax a jóg par exemple li mel ni HCCT en principe c' était pour caser ñi nga xam ne ni ay borom xam-xam lañ ñi nga xam ne ni retraité nañ muy ñi nga xam ne ay colonel lañ wala ay préfet wala ñi nga xam ne ni domaine bi ñu nekk ay somnité lañ fa. Mm-hmm. ñu récupérer leen ñu nekk foofu noonu di fa liggéeyal askan bi. recommandation assise nationale boobu la wax nga xam na ni am na ñoo xam te ni tey dañuy am xam-xam yoo xam te ni buñ bu buñ retraité nga bàyyi leen mu dem ñu dem toog rek gâchis la mhm. perte la mhm. donc loolu république bi mun na si seen xam-xam yooyu na ñu jël leen fa teg leen fa mhm. euh, beneen bi nag muy euh, conseil économique social et environnementale moom li ko tax a jóg mooy li nga xam ne ni c'est des hommes d'affaires ñi nga xam ne ne c'est des acteurs yi nga xam ne am nañ xam-xam ci domaine bu ñu ne par exemple nga dem ci wàllum agriculture nga jël ñi nga xam ne ne c'est des principal principaux acteurs nga jël nga dem ci wàllum industrie ñu mel ni ay Serigne Mboup nga xam ne ni ay champion lañ ay patronat ñooñ nga ñëpp nga jël leen yóbbu leen fa nga xam ne ni président de la république li muy soxla mooy c'est des avis ay conseils ay avis consultatifs nga xam ne bu naree def dara ci wàllum patronat wala industrie ñooñ dinañ am loo xamante ni nga ñoom ay acteurs lañ nañ ko proposer ne ko ñun ñuy yëngu ci domaine bi lii ak lii la ñuy daj jox ko ay conseils jox ko ay recommandations nga xam ne moom mun na cee sukkandiku. Mm-hmm. développer ay politique mais malheureusement la réalité est tout autre la réalité est tout maanaam institution yi nga xam ne ni dañoo dañoo waroon servir état. finalement dañ koo def recasement de benn clientèle politique. politique loolu nag moo tax. ñu toll benn moment boo xam ni ñu ñi ne pourquoi pas ñu dissoudre parce que dafa am détournement d'objectif ci institution effectivement da ngay dem au conseil wala nga dem euh, ci ACC tu ne tu que des des politiciens des yoo xam ni nga bëgg a waxtaanee ci mbay mais man booy waxtaanee ci mbay man nga yóbbu ma fan laa fay def xanaa ma pare encaissé samay euh, samay kii nga bëgg a waxtaanee ci industrie nga yóbbu ma fa lan laa fay def nga bëgg a waxtaanee sport nga yóbbu la fa yow loo fay def ah nga toog di ak leneen maanaam. Mhm. il faut que les gens comprennent que. Mhm. Euh, dafa am loo xam ne c'est du sérieux et j'aime bien le fait que ñu ne yii dañ koy dissoudre mais à la place lan lañ fay teg proposition bi bala Moussa wax nee ne ay pôle lañ bëgg a créer ay pôle euh, je pense huit pôles xaw ma. pôle ay pôles ay pôles régionaux lañ wax ni lañ koy créer mais est-ce que tam bi du nekk jële fi bàcc teg fa sàmba li fi amoon amaat ci waaw parce que yàgg nañ assister euh, ñu fiy jëlee ay institution dem andi yeneen Abdoulaye Wade am na institution yoo bëri yoo xam ne da ko dindi andi yenn dem ba ci biir dindi yii defaat li Macky Sall kazalika est-ce que du même scénario mooy produire mhm. parce que nee nañ euh, ñaari institution bu ñu ko dindi c'est quinze milliards de bénéfice quinze milliards nga xam ne ni day dugaat ci gafa askan bi donc loolu noonu am na solo bu fekkee euh, dañoo am objectif créer li nga xam ne ni euh, dina servir leneen lu dul case clientèle politique. donc il faut que nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax institution yooyu noonu. boobu li ci gën a grave. Mm-hmm. xam mooy c'est une recommandation du HCCT. HCCT mm-hmm. moo ne woon il faut ñu créer six pôles régionaux. Mm-hmm. ñoom ñu ñëw ne huit. déjà si ils ont ajouté revient si li ñuy wax. waaw ça euh, continue revient li ñuy wax mooy en fait nga bëgg a tas yenn institution yi. parce que c'est jugé entre guillemets budgétivore. Mhm. nga tegaat yenn nga xam ne ni budget yi mu fa jëlee moom nga fay dolli. amaana sax mun nga dolli beneen xaalis. ah boo xoolee 15 milliards au moins. déjà ce HCCT. c'est 270 membres. Hmm. boo defee huit pôles. administration ba. ak ñi fay nekk au moins ça fait cinquante personnes. multiplié par huit ça te fait quatre cent quatre cent. <laughs> te ñii deux cent dix la ñu woon donc ça veut dire que on on veut. on risque d'habiller de déshabiller Pierre pour habiller Paul. effectivement mooy mooy mooy mooy mooy mooy pertinence su. réfléchir si lañ la parce que boo xoolee effectivement lu mu wax ni. HTCC wala CC dafa centraliser. waaw yow bu nga dëkk Fungale mi kii dëkk Tamba kii dëkk fii mais en fait bu ñu fa toogee nombre bi nga xam ne mooy nombre exact noonu fay bu ñuy waxtaanee problème bi nga xam ne par exemple or Sabadola wala yu demee noonu ressource naturelle. dañuy teg or du jour tel thème lii la ñu xool ñi nga xam ne ni seen xam màcc na ci. Mhm. ñu waxtaan ak mais bu fekkee c'est des loolu tamit pôles yi comme ni mu ko waxee mun a nekk mais. waaw léegi <laughs> nag conséquence la nar a am pôle yooyu au cas ak su si suñu gafa réew mi. est-ce que tamit bi du gën a yokk yan conséquences. Ah, surtout askan la nga xamante ne le risque est là man xamaguma nag configuration pôle mais ni ñu ko waxee noonu. Mhm. il faut nga wutal leen benn batiment pôle régional nga wax. il faut nga wutal leen fu ñu nekk wutal leen ay administration. ainsi de suite donc ça ça ça risque d'être plus lourd que li fi nekkoon sax et puis ndax dina am njariñ boobu ñu ñu ñuy xaar aussi donc tout ça c'est c'est des problèmes mm-hmm. ba léegi daal man jàpp naa ne dañu war a travailler à ce que nos institutions mm-hmm. soient pérennes ñu def benn consensus bu fort par rapport à nos institutions nga xam ne lu ñu fi teg kenn dootu ko dindi mm-hmm. mais bu dee bu Ablaye Wade ñëwee chaque régime bu ñëw ak ses institutions. Macky Sall ñëw ak ses institutions Abdou Diouf ñëwoon ak ay institutions ñi ñëw ak seen institution finalement. mais doyen boo ñëwee aussi fekk fi institution boo xam ne amalul njëriñ askan wi ah loolu tamit est-ce que du gën ñu dindi ko teg leneen loo xam ne day. amal njëriñ institution boo gis amal na njëriñ askan wi. lenn problème bu kay nen lañ koy jëriñoo xam nga kii wax na la sànq. li taxoon jóg HCCT. ça veut dire que li ko taxoon jóg defuñu ko. changé mais mais bu ñu defee li ko taxoon jóg. Hmm. institution c' est bien passé. Hmm. gars yi dañu ko xalaat de ay borom xam-xam ñoo xalaat c' est bien passé mais malheureusement yow boo nekkee politicien. Hmm. da ngay ñëw li la intéressé mooy nan laay def bay caser samay nit nan laay def ba dooleel sama politique. finalement loolu loolu mooy problème mais bu doon institution même yi fa njëkkoon sax gars yi ñoo ko wëlbati rek. mais bu ñu ko jaaree woon fii objectif. initial bi. Mhm. buñ ko détourné wuloon kon wax dëgg yàlla kenn. te te may mun a man euh, initiative dissolution bi dam cee gisaat leneen. Mhm. comme la euh, récemment euh, au conseil du dialogue territoire euh, territorial bi Benoît Samb nekk. bi Benoît Samb nekk dissoudre nañ ko. Mhm. léegi xam nga assemblée nationale dañ naan kuy sang sa wujju du set. kuy sang sa wujju du set. assemblée nationale bi dafa nekk assemblée bi nga xam ne c'est euh, une assemblée à problème. Mm-hmm. léegi nag euh, pour euh, dissolution bi ñoo ngi ko doon waxtaanee yàgg nañ cee wax. Mm-hmm. léegi pour légitimer loolu nguur gi fi nekk xam nañ amuñu majorité assemblée nationale. Mm-hmm. xam nañ ne bu ñu fa yóbbee loolu du jàll. xam nañ ko ñoo la ko gën a xam ak contexte bu ñu fa yóbbee également. contexte xam politique yéen en un moment donné da ngay jàng lii lan moo ko wund. parce que bu doon par exemple da nga fa am assemblée mais euh, assemblée majorité mais am na loo xam ne bu jàllee day nekk comme benn lettre à la poste day ñëw rek jàll. mais mu leer na ni yow assemblée bi amoo fa majorité benn ñi nga xam ne ñoo créé institution yi muy Benno Bokk Yaakaar ñoom dañuy défendre institution yi. parce que ñoom dañ jàpp ni institution yi nga xam ne ni yéen lañ fi bëgg a jëlee baax na moo tax ñu créé ko. Mhm. muy HTC te te durant seen mandat yëpp dañ koo défendre. jàpp ne institution yi la nga xam ne ni am na njëriñ ci askan bi yow tey boo ñëwee nga ne la ne voté leen ñu dissoudre institution mais ana ana logique bi li gars yi amul cohérent man yow munoo yow munoo sol li ngay sol nga ne lii laa ma ñëw ne mais amul sens amul sens. te benn femme rek ne ko débarrasse-toi de ton bébé. amul sa bopp. elle ah, donc ñun ñëpp. laataa même affaire bi dem assemblée nationale pour ñu ah, voter ñun ñëpp xamoon nañ ni du mm-hmm. jàll léegi nag. dafa am li nga xam ne ni c'était benn promesse électorale mooy rationalisation des dépenses euh, récemment maa ngi gis kii nii Abdou Mbow euh, kii astafula ministre de la jeunesse bu bu mujj wi Pape Malick démb maa koy suivre ci mu ne Ousmane Sonko léegi dafa ne gars seen bureau yi ranger leen braada ay kaase yi amul ataaya ak frigo yi en réalité mesures yi dañ koo xeeb mais. am na dëkk kii bu mu génn arrêté bu mu génn la fekk. Euh, frigo yi mooy dépense électrique de l'État. Mm-hmm. dépense électrique de l'État mu ne nan la ñuy xool pour rationaliser ko ba crée ba ne ni euh, entreprise bu ne war nañ am fenn fi nga xam ne fan la ñuy centraliser frigo yi def fa yenn kii mais pas bureau bu ne moo nga am chauffe euh, nga am chauffe am sa frigo am sa lépp sa donc loolu noonu c'est des moyens yi nga xam ne ni euh, dina mën a yar nit ki parce que en réalité am na bureau yoo xam ne grand da ngay dem mais c'est du n'importe quoi mm-hmm. y a nit ki day toog bureau am taal teleem di seetaan télé duñ liggéey yooyu noonu dañ ci war a liggéey xool nu ñu yokkee mi xool nu ñuy yokkee ci yenn affaire yi mais. yaraat suñu bopp yaraat suñu bopp. tout ça mais dès l' instant que moo am aspiration politique. parce que man booy ñëw ci man mu leer ma ni li ngay def ni man a yow yëpp politique mais li ngay def ne c' pour rey ma mais damay défendre. Mm-hmm. bennoo munoo ko ne ni voté loi bi nga xam ne day rey euh, euh, CSE ak HTSE nga xam ne bennoo mi nga xam ne. ay militant am ñoo fa nekk ay responsable am ñoo fa nekk nga ne ko suulal ñoon moo tax def mooy décret bi ñu bloqué seen fond dàq directeur yi fa nekk. bloqué seen compte donc donc voilà ko loolu daal lañ mën a kii aussi. jaajëfal nañ ko Sadio Faté dañuy des ba tey assemblée nationale doyen. Mm. Euh, kii di Abdou Mbow fan yëpp gis nañ ko ci euh, réseaux sociaux yeeg ci télé bi. Mm. Euh, daal di day wax que ne ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko gouvernement bi dafa lajj ah traité na leen façon kii bu nekk donc nee na bokk na si looloo tax.